Tanor dégg naa bàyyi nga bëre. bàyyi bëre damaa commencé gum sax. dégg naa bàyyi nga de. non loolu ay wax rek jox mu mbër. non mais mbër bu bërewul doon nekkatul mbër. non gars yi mooy rek su ma sañoon bëre su combat suba suba. déggoo ma mbër boo ma jox ma jël. ñaari combat man 15 combat laa am. victoire. benn défaite. waaw ku la daan. la am bokk seize combats. seize seize. kan a kan la daan. Cheikh a moo ma daan ñu bëriwaat ma daan ko ak kati. bàyyi ko kon ci seen. jeex na waaw. kati quatorze victoire. mais lan moo tax ba léegi nangu gars yi nanguñ laa jël xaw ma nangu mais lamb ji moo yàqu mbëri ñoo bëgg lu yomb. mais xam nga ne ku daan double Tyson daan Gabar Sine daan Mbaye Guèye Junior daan Vandam kon lamb ji kenn waratu laa bay. Ada Fass bu ñëwee ma may ko sens wax jeex na demal. bu ñëwee ma may ko sens ñu bëri. daa dugg fii am lu mu def. déggoo ma bu ñu Ada Fass bu ñëwee ma may ko sens dama koy may sens 14 victoire laa am dégg nga bu baax li ma la wax su ñëwee ma may ko sens ñu bëree. waaw bu ñëwee ma may ko sens. gisoo ni mu def déggoo li ma la wax. moo tax ma bëgg a jàpp affaire yi yaa ma gën a xam. Kulifay daa juum rek mais Kulifay moo mën Ada Fass suñ ma ko joxee ma corriger ko ma duma ko daan ko ci kàttanu yàlla. jur be laa dëgg de lu ma la wax loolu dama koy def incha allah jërëjëf.